salaamaaleykum mbokku Sénégal nag ñu ñëw dëkk boo xamante ni symbole la ci Sénégal waaye ci Afrique yëpp muy Ngaye ginnaaw bi ñu defee un peu le département teere la si fii fas yéene defe fii suñu communication li tax ñu tànn fii nag mooy ñun dañu nekk ay militants de l'artisanat lépp li nga xamante ni bëgg nañ ko ci mu war ko porter comme enjeu dinañ ko mëna a saafara boo xoolee ni nga xamante noonu lañu leen soofantele ba ci budget bu Sénégal jamono bu ci nekk la ñuy wax ne moom lañ leen di jox day néew te la muy néew néew liñ ciy jot ko gën a néew ndax li ñu soxla dëgg ñoom pour ñu mën am une vraie industrie loolu lañ leen defagul mooy ay tannerie yu moderne yu mën a def production de masse yoo xamante ni ñoom dina leen permettre li ñu bëgg a def yëpp ñu def ko ndaxte liggéey bu ama am solo la ñuy def di di góorgóorlu ci formation di góor góorlu ci euh, chômage bi kon nag jot na sëkk état du Sénégal xam li mu am xam na yit tey ni ñuy nawee yeneen mark feneen ci àdduna bi ñoom tey jii noonu lañ leen war a nawee noonu lañ leen war a fonkee moo tax président de la république suñu ko suñu borom defee ci ndimbalu sénégalais yi dinañ taxaw ci seen wet jëmmal ko ndax jëmmal artisanat mooy jëmmal formation mooy xeex chômage mooy xeex ndool mooy xeex ñàkk mooy xeex émigration clandestine tey nag Pape Djibril Fall aussi ñëw foo xamante ni fu mu miin la tooguma ba nekk candidat à la présidentielle ne naa dem ngaay def ni politiciens yi di def fii yàgg naa fi ñëw yàgg naa waxtaan ak ñoom yàgg naa diisoo ak ñoom xam seen i euh, jafe jafe yemuma sax ci di ñëw ngaay rek waaye ba ay kuré joor ak yëpp dama fay dem euh, ñu nekk fii à quelque kilomètres de ngaay mu nekk dëkk yoo xamante ni tamit lii nga xamante ni moom mooy defar dàll defar saak defar yooyu yëpp nga xamante ni tey ji nit ki daf koy soxla loolu moom mooy seen liggéey te boo fa demee tey daanaka waxuma la sax seen métier valoriser wuñ ko mais infrastructure yoo xamante ni sax de qualité yu fa mën a yóbbu nit ñi daanaka amul amul hôpital kuré joor boobu may tudd amul tali te noonu la dalee village yi nga xamante ni yëpp ñoom ñooy environnement te nga gis potentialité bi nekk fii ak richesse bi nekk fii kon euh, jàpp nañ ne bu ñu taxawalee li nga xamante ni moom mooy euh, artisanat ba mu am solo ngaay dina nekk dëkk boo xam symbole bu mag lay doon boo xamante ni jàpp naa ne euh, li ñu bëgg ci Sénégal muy un développement économique et social harmonieux dina ko mën a def. artisanat tey occupé une très bonne place ci sunu programme bi nga xamante ni duñ ne moo fi gën waaye ci gën la bokk kon maa ngi sant bu baax. Euh, bépp cordonnier bu nekk fii ci Ngaye ak nekk ci barab yu fasantikoo ci biir euh, Sénégal euh, di bàyyi xel bu baax waa Médina di gërëm bu baax tamit doomu ngaay yëpp ci nit ñu gungee Sénégal jot nañu teg ko ci ay loxo yu sell jot nañu teg ko ci loxo yoo xamante ni mës a luubal xaalisu Sénégal masta sàcc tamit suufu Sénégal jikko yu sell yoo xamante ni dinañ mën a permettre Sénégal aujourd'hui mu jouer son vrai rôle euh, dans le concert des nations waaye nag euh, xel mën naa dal ndax yaakaar judduwaat na réew mi dinañ ci jot te dinañ ko soppi ànd ci ak doomu Sénégal yi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant jërë ngeen jëf